Djibril euh, Gningue nga nekk euh, membre euh, ci groupe de recherche et d'appui à la démocratie participative et la bonne gouvernance maanaam ci société civile bi ñu la doon laaj ban jàngat la société civile bi daal di def ci organisation yu élection législative yu 31 juillet 2022 alors observation bi ñu def ci élection législative yi weesu yi ñu nekk te jeexagul Euh, mën nañu ko tënk ci ci ñetti ñetti ponk ba ñeent euh, ponk bu njëkk bi mooy bi nga xamee ne ñu ngi waajal élection yi bi ñu koy waajal ci phase inscription bi gis nañ ne euh, ndaw yu bëri yoo xam ne ñu ngi doon doog a matal seen at pour mën a bokk ci élection yi jotuñu woon a mën a am possibilité pour mën a dem poli def ut carte d'identité xaar carte d'identité bi génn ñu dem inscrire pour mën a am carte électeur alors gis nañu ne aussi ñi nga xam ne bi woon nañu ñu néew ñoo ca jot jël seeni i carte électeur alors ci wàllu euh, parrainage bi aussi gisoon nañu ay jafe-jafe yu mag ci amoon donte amoon na euh, ay amélioration yu administration yu indi woon ci parrainage bi euh, gisoon nañu ay jafe-jafe yoo xam ne tax na ba euh, ñaar fukk ak juróom yi nga xam ne ñoom ñoo déclaré woon pour mën a bokk ci élection yi ginnaaw yi fukk ak juróom ñoo ci déposé seen dossier te fukk ak juróom yooyu juróom-ñett rek lañ ci nangu seen dossier euh, gis nañu jafe-jafe yi amoon yëpp ci commission ba gis nañu aussi décision yi nga xam ne conseil constitutionnel rendre na ko ñu ci bëri alors ànduñu ci woon ci acteurs yi alors ginnaaw loolu nag gis nañ ne élection yi ci boppam organisation bi doon na organisation bu mucc ay la yëwan matériel bi nekk na en place à temps euh, bureau yi euh, composé nañ ko bureau bureau yi ubbi nañu en gros ci heure yi ñu waroon a ubbi diggante juróom-ñetti waxtu ak juróom-ñetti waxtu huit heures trente euh, opération électorale yi déroul déroulé wu na am jaar nañu ci yoon ba moment bi ñu war a war a tëj ñu tëj euh, gis nañu rek euh, taw bi indi woon na tuuti njàqare waaye ginnaaw bi terewul nit ñi un peu partout wote nañu dem nañu wote ji alors amoon nañu njàqare ci taux de participation bi mais euh, finalement je pense que ñu am taux de participation boo xam ne euh, dana jege lool wala mu méngoo ak taux de participation yi nga xam ne mooy faral bi am ci élection législative alors loolu nag yëpp bi ñu ko jàngatee am na ay ndénkaane ay recommandation yu nga xam ne ñun GRADEC def nañu ko euh, nee nañu bu ñu génnee ci bi Euh, ndénkaan yi état bi lañ ko lañ ko jëmale war nañu def revue du code électoral une profonde revue du code électoral maanaam code électoral bi war nañ ko càmbaraat bu baax a baax ba defaraat ko jooyanti ko matadi yi ci nekk ak euh, manqué manqué yi ci nekk yépp ñu jubbanti ko gis nañ ne carte électeur itam war nañu dellu ca la xam ne moom lañ daan def ñu taxale carte électeur bi ak carte ndax bu ñu leen boolee dafay diisal procédure yi te dafay indi ay jafe-jafe pour que ñi ëpp ci population bi am carte électeur pour mën a wote te comme fii ñu nekk le vote n'est pas obligatoire alors euh, dafay indi ay jafe-jafe. voilà Djibril njëng mënoon nañu xam parce que ci ci ci vote bi euh, société civile bi daañu envoyé ay observateurs un partout euh, ci centre yeeg bureau de vote yi observateur bi ci boppam ci li nga xamante ni mooy élection yi lan la. rôle observateur yi mooy ñu xool topp. processus électoral bi topp opération électorale yi euh, pour euh, saytu ko ba xam ndax jaar na ci yoon lépp luñ ci gis loo xam ne euh, jaarul ci yoon wala méngoowul ak li loi électorale yi tëral ñu daal di koy signaler ñee ñu ko war a signaler pour ànd ak ñoom pour loola ñu saafara ko ñu joyanti ko pour élection yi mën a jaar ci yoon alors bu élection yi jeexee ñu def euh, euh, ay recommandations ay dénkaane jox ko ñi ñu ko war a jox waaw maanaam état bi euh, muy Sénat muy média yi muy parti politique bi alors bu ko defee ndénkaane yooyu daf leen di may buñ ci sukkandikoo bu beneen yoonee ñu gën a defaraat seen taxawaay pour élection yi Euh, gën a ñoŋ nekk élection yu gën ñoŋ nga xam ne dina gën am transparence dina gën am euh, euh, intégrité ak sincérité. voilà ñu gis ni Djibril ñing bala ñu ñëw sax ci guerre des chiffres yi est-ce que élection mënate nañ ko sàcc fii ci Sénégal est-ce que lu ni mel c'est possible oui ou non mën nañu sàcc ba léegi élection au Sénégal. Ah, ba bala ma laataa ñu ñëw ci loolu bëggoon naa ci recommandation yi aussi. ndénkaane yi ma doon wax. waaw alors ma yokk ci euh, yeneen wax nañu aussi ne parrainage bi war nañu ko seetaat waaw defaraat ko ba jubóo ci ndax na gis nañu coow lu bëri lu mu indi woon ak ñi nga xam ne aussi éliminer nañ leen ci te ñu waroon na bokk ci élection yi alors wax nañ ne aussi ci recommandation yi toujours nañu dématérialiser alors euh, procédure yi processus électoral bi pour mën a faciliter citoyens yi ñi ci ëpp ñu mën a participer euh, ci ci ci élection yi mën a accéder ci fichier électoral bi également ndax xara xarala yu léegi maye na ko alors wax nañu aussi euh, benn ndénkaane bu am solo boo xam ne dañ ko jëmale ci justice bi alors maanaam ëttu attekaay bi conseil constitutionnel parce que bu ñu wootee ba pare nii bu conseil euh, commission nationale de recensement des votes pare day jébbal lépp conseil constitutionnel mu war a atte proclamer résultat définitif bi vraiment euh, dañu recommander jox ndénkaane conseil constitutionnel bi euh, comme moo war a atte vraiment mu tëddee njaaxaanaay def acte boo xam ne bu mucc ayib la waaw jël intérêt réew mi teg ko ci kaw lépp acte avec rigueur avec objectivité et impartialité. est-ce que mën nañu sàcc élection ba léegi Sénégal. waaw pour sàcc élection loolu mën nañu wax ne li ñu tuddee sàcc élection maanaam mooy ñu jaarale wote nit ñi foo xam ne waru ko jaar ñu fexe ba wote nit ñi euh, ñi mu waroon a feeñe ci résultat yi du ko feeñe ci résultat yi wala ñi waroon a wote wotewuñu euh, loolu fenn rek la ma euh, mën a amee mooy ñu bañ a jëfee tëralin yi nga xam ne ñoo nekk ci loi électorale bi ci code électoral ndax lépp lu ñu war a def pour que élection yi jaar yoon ñu ngi ko tënk dëxëñ ko ci loi bi nga xam ne moom la ñuy wax code électoral kon nag bu fekkee ne jëfee nañ ko normalement euh, loolu ñuy tuddee sàcc élection wala détourner suffrage yu électeurs yi du mën a nekk euh, bu ñu ko jëfewul nag loolu mën naa ubbil bunt euh, ay loolu mën naa ubbil bunt ay jubadi Euh, yu bëri euh, ci biir élection yi ba nga xam ne résultat yi du nekk résultat yu sincère voilà Djibril ñu ngi ñu gis ni tamit euh, depuis 31 juillet ci guddi ba léegi coow li bari na ñu koy wax guerre des ci diggante ñi fare ci pouvoir bi ak ñi fare ci kujjeeg politique bi ku nekk jàpp nga ni yow yaa am majorité ban jàngat nga ci am. waaw loolu jàngat yu ci am mooy que bu ñuy nit ñi voté ak fi ñu teg élection nga xam ne juróomi at benn yoon lañ ko ci yar ñu koy xaar ci juróomi at yëpp bu ñëwee nit ñi dañuy mobiliser bu voté dem voté ji bàyyi lépp dëkk bi ne teg ñu tëj lépp jubli ci voté bi bu ñu wotee ba ngoon dañuy bëgg a xam seen voté boobu lan la jur maanaam yan résultat te leader politique yi aussi dañuy bëgg ñi leen voteel ñu xamal leen Euh, résultat yi nga xam ne moo tukkee ci wote ba alors loolu nag euh, moom li ñu mën a def ñoom yaakaar naa ñu bëri ñoom moom lañu la ñu def euh, mooy ñu def ay estimation parce que résultat yi ci boppam pour ñu joxe ko officiellement loi électorale bi kenn rek la ko jox mooy conseil constitutionnel ginnaaw bu commission départementale yi euh, xayma vote yi yóbbu ko commission nationale de recensement des votes conseil constitutionnel rek la loi bi may mu proclamer résultat bi ginnaaw bi nga xamee ne coalition yi nga xam ne d'accord ñu def nañu seen ay recours alors loolu may ñu ko benn coalition benn coalition euh, may ñu ko société civile may ñu ko keneen ci réew mi waaye nag coalition yi peut-être am nañu possibilité def ay estimation pour joxe ay tendance ah, loolu nag moom certainement mooy indi xëccoo bi waaw kii ne man maa gañe ndax am naa nangam à peu près bu ñu defee calcul bi fii ne man am naa du loolu d'accord ma ci lii et cetera tu mais loolu sax manoon naa ñàkk bu fekkoon ne li am ci réew yu mag yi am na fii fu mel ne France dafa am ay kër yu ñuy wax institut de sondage gouvernement bi reconnaître leen parti politique yi wóolu leen jox leen kóolute ci ah, mën leen ci lim euh, institut bu ñuy wax BVA wala CSA wala IFOP wala INSEE ñoom gis nga France bu jotee ñun ñu nekk fii sax boo ubbee sa télévision à dix huit heures euh, muy tolloog vingt foofu ci ñoom maanaam heure bi bureau di dañ lay wax résultat yi ah duñ la wax résultat yi officiel mais dinañ la jox ay tendance yoo xam ne ak ay chiffres yoo xam ne euh, parti yi dañ koy daal di accepter tout de suite da ngay gis ñu génn dem def seen ay déclaration ñi war a reconnaître seen défaite reconnaître ko ci jour bi même ah ñi war a féliciter ñi gagné ñu leen te résultat officiel yi génn conseil constitutionnel waxagu ko loolu nag démocratie bu avancé moom moo koy maye euh, de Sénégal ya euh, jàpp nañu ne ci démocratie yooyu la bokk wa waroon nañu tëggaat loi yi ak code électoral bi ba nga xam ne loolu dinañ ko mën a am loolu bu amoon dina dindi xëccoo yi parce que loolu parti bi def bu boobaa institut de sondage yooyu ñoo koy def ñoom ay jàmbur lañu. voilà dernière question Djibril euh, Gningue euh, ci xëccoo boobule euh, ñu bari sax di njortu ne li ñuy wax cohabitation boo moytu dana am ci assemblée nationale si jamais opposition bi am majorité ban genre assemblée la ñu nar a am fii ci Sénégal. ñaari Euh, ñaari possibilité moo am ñaar moo ñaar euh, ñaar ñaar moo mën am benn bi mooy kenn ci ñaari coalition yu mag yooyu am une majorité franche très large loolu moom moo daan am ba léegi fii Sénégal bu boobaa dafay gouverner sans problème ndax euh, bu soxlaa majorité absolue dana ko mën a am maanaam mooy majorité trois cinquièmes beneen bi mën a am mooy que kenn ci ñoom euh, ki nga xam ne dafa ëpple du am majorité absolue majorité relative lay am comme li xew France actuellement bi ñu we génnee ci seen élection yi wees bu boobaa nag kooku am majorité muy opposition bi wala parti au pouvoir bu ñu àggee ci ñu war a voté yenn xeetu loi yi ñi xam ne moom la ñuy wax loi organique bu boobaa dafay soxla waxtaan ak opposition bi ba déggoo wala mu waxtaan ak yeneen groupe parlementaire yu fa nekk ba ñooñu dooleel ko mu mën a am lim bi nga xam ne war na ko pour matal majorité absolue bi pour mën a wote loi yooyu alors loolu nag Euh, yaakaar naa ne bu amee changement rek la mën a indi ci réew mi ndax kenn dootul mën a euh, taxaw di def lu ko neex di buur du bët di bum yi comme ni wax kon loolu même loolu bu amee jarul tiit comme ni ko nekk ne ñett ñi di waxee parce que bu boobaa euh, il faut que assemblée nationale bi dox ndax ñu constitution li mu tëral mooy kenn mënul tas assemblée boobu li fi amul ñaari at bu amee ñaari at nag président de la République ki nga xam ne mooy président de la République am na droit tas assemblée boobu bu fekkee ne assemblée bu neexu ko na muy doxee daal di convoqué waat yeneen élection loolu nag. Mhm. bala moo am élection présidentielle bi ñu dëgmal dana ñëw ba ñu tegaat ci juróom-benn weer. voilà Djibril Gningue euh, may fàttali ni bokk nga ci groupe de recherche et d'appui à la démocratie participative et la bonne gouvernance euh, ñu lay remercier bu baax a baax. waaw maa